Bienvenue sur Salam Vision. la hawla waaye tabaarkalla mooy sama sëriñ boobu bàyyi ba koy kuntu di ko ñaan yal na yàlla dëgëral ko yal na yàlla sàmmoo yal na yàlla waxtu ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu tabaarakallahu waaye yëpp di jégalu nag ci géej gi déggante bi ak yéen mu mel ni tabaarakallahu bi ñu waree ba léegi jàkkaarloo muy yéen wala bu fekkee am na benn yoon la yaakaar naa ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax xar-xar jamono borom subhaanahu wa taala mu def ñu jaay am naa doomi alaaxira tabaarakallaahu di ndokkeel nag di ñaanal ñi nga xam ne lislaam doom moo leen ñor lislaam doom moo lañu bëgg lislaam doom moo lañu faale te te leneen lu loolu amu fi ndax inna diina inda allahi islaam tabaarakallaahu ki nga xam ne mooy président Erdogan nekk bu Turquie tabaarakallaahu gis nañu position ci lislaam bari na ay président yu mel ni moom waaye kenn ñu mu ci wax waaye gis nañu position gis nañu wóolu gi mu wóolu yàlla gis nañu bàyyi xel bi mu bàyyi xel yàlla te ay moroom yu fi woote jullit ñoo fi nekk te kenn déggu leen ñu def seen position waaye nag yàlla baax na si waxoon fële yoo xam ne diina amul bàyyi ñu fi laal sëgal bàyyi nga tëbal nga waaye bu fi laalee diine ñëpp ne teg teekaara di dal Palestine yàlla yàlla may ci ndam ne fa dugg seen biir di dal seen kaw day jaay doole yàlla neex rek billaa yàlla neex yàlla rek la neex di abdul di abdul muttalib waxoon abraha ni ko ñëw mu fi la abdoxe siwaamu naam bi waaw waaye kaaba ge wara boobu wara boobu amuhu borom bi moo koy dimbal boppam moo koy wattu boppam waaw ni ko loolaa sa am loolaa sa am baytil lu tax laa demoon néeg bi nga xam ne say maam ak say maamaat ci lañu tëddee ngir wax kaa toog daf ñu ko dégg néeg bi sama yoon borom dina ko gaare moom kon yàlla la neex rek la neex Israël daal ci kaw Palestine ni muy dal nii waaye bis dina ñëw lépp dina jeex incha allah rabbi kon képp kuy julli rek ñu ngi koy naqaru képp kuy julli ñu ngi koy naqaru tabaraka allah di ñaanal président Erdogan yal na yàlla gën a taxawu ko yal na yàlla gën a sàmm ko ñu waxoon ñu kenn dara wax dëgg yàlla xam nga lu ñuy pointé doomu aadama ndaxte boo xoolee réew Sénégal bi yàlla xam doy na bi ci ñaare ba mooy les homosexuels mooy góor jigéen ñi waaw nga ne jullit nga ngay naan kenn ku ne am na droit dund lu ko neex te nga ni jullit nga yàlla ni jullit nii lay comporté waaw bu ñu waxee rek ñu Sénégal bàyyi neex bu dee da fekk semence bi jël alalu jaabu fekk ngir aadama nga ci kawam ndax moo ko wasaare kenn nga xam ni kon yàlla yàlla doon si doon ñu doon marché ci les zones sociales ci affaire góor jigéen ñi yàlla yàlla gën a dëgëral am doole ndax ñi leen di am nga xam ni kon yàlla rek moo ci des waaye dañu xam ni li mu defoon waa Kër Nour yi buñ ko jombalee ñun suñu bopp waaw li mu defoon waa Kër Nour yi buñ ko jombalee suñu bopp yàlla nee na ñaanal dul borom bi subhanahu wa taala yéen yàlla gën a dëgëral leen yéen yàlla gën a sàmm leen gis nañ position xalifa yi fa tabarakallahu te loolu dong lañ soxla woon ci ñoom waaye nag gouvernement moom yàlla xam doy na biñ dee ba koy jiiñee nii wax fa tabarakallahu ci biir gouvernement bi te ñooy ay tudd jullit di woote jullit ah yàlla rek a xam waaye daal doy na waat nit nag moom tabarakallahu lépp lu muy wax rek dañuy am certitude comme man nag aw ma certitude du ma ji kenn du ma joxoon kenn ne moom nga wala doo moom waaye yàlla daal xam na yàlla yàlla mi xam moom mi wax maa ngi dina jege seen bu mu xol yi fa tabarakallah xam na ki ko doon dañu xam nga boo ko doon xam nga waaye nag dañ lay mën a conseillé bi ko doon fexe cee génn balaa ngay du du wees waaw ne ngeen ba ngeen ci kaw bu daan gàcce lu dal si wax seen yërmande laata ko mbéy mi nga xam ko bàyyi dellu si wàll la ndax man yàlla may borom ngeen mën sama message bi nag jàng nañ wa rahmatullahi kulla xalqan wasa min fajirin wa mutirin zahirin baari kon képp ku ci nekk na nga dellu nga tuub boo tuubee yàlla dana la jéggal weesoogu trop tard amul ci àdduna ci biir suuf dong la kooku ci doolu nag fexeel ba dara mu la jaar bu dee koppar bi fi nga koy bu dee kër yi fi nga bu dee oto yi fii nga koy bàyyi te bis dina ñëw sa borom ci biir bàmmeel nga xam ne bu ñu xool am na am ko ci bu dara moo gën am ci ki nga xam ne yàlla gërëm ko kon tabaarakallaahu ñu dal soit fii rek seen émission bi Alam Hawa fii ci ci chaîne YouTube bi ci bànnee bi di ñaanal DG bi yàlla yàlla gën a tuddal fan yàlla yàlla gën a sàmm yàlla yàlla gën a wattu ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey nag ñu ñëw ngeen ci ngëneelu njàpp ñu ñëw ngeen ci ngëneelu njàpp wa fadaa'iluhu mu ni ngëneelu njàpp waxoon na leen farata yi wax leen ñaata la wax na leen sunna yi wax leen ñaata la tey nag ñoom ci ngëneel yi waaw tey ñoom ci ngëneelu njàpp mu ni wa fadaa'iluhu ngëneelu njàpp ji jiit ma ak tas meetu na yow bismillahi rahmaani rahim kon boo ko waxul sax jàpp bi baax na waaye li gën mooy nga wax ko waaw lii boo war a am fukk boo war a def doo am dara nga def ko am fukk moo gën waaw même boo ko waxul njàpp bi baax na waaye li gën nag mooy nga bismillah rahmaan rahim waaw mu ne bokk na ci ngëneel bi yokk ay point buñ ko xeeb bi ci ñaareel ba wasiwaaku ak socc ñu ni socc Seydina Muhammad dafa ni su ma bañu woon sonal samay xeet naa leen imposé wax leen ku ciy jullee leen socc waaw su ma bañu woon sonal samay xeet soo xoolee fanweeri ngëneel ñi def naan foo juróom benn ñi def fukk ñi def waaye am na ngëneel yu bare bare bare bare waaw socc am na fanweeri ngëneel yoo xam ne ci biir socc waaw bi ci jiit nee na booy socc day dëgëral bëy day day day neexal bi ci ñetteel ba day kontaan loo yàlla noonu lañ koy jàppee di ko ne waaw xoolal ngëneel ni socc waaye moo la gën a jël socc te bos aadama mën na dem ba mujj gi mu yàq sa bëñ te socc dafay dëgëral bëñ waaw day neexal baax ngir booy jàng alquran mu mën neex day tax yàlla kontaan day leeral ay bët waaw xoolal gëlëm di socc yëpp wala Seydina Muhammad mu ne ku julli socc moo ëpp doole foofu ki julli te soccuwul avant ngay julli nga socc man mi julli socc yow mi julliwul soccoo su ma amee vingt yow ngay am waaw wala Seydina taxaw lu mu xat xat xat xat xat dina jël socc bi dugal ci géej loolu yor na jàpp waaw waaw mu ne ak tasmiir ma bismillahi rahmaani ci ngeen le bopp wa siwaak ak socc wa ala rasil ula ak doole yooyu doole ci bu njëkk ba yooyu nga ne la première raxas bi nga bu tooyee rek loolu mooy fadlu bi deuxième bi ngëneel la troisième bi ngëneel la waaye bu première bi tooyul deuxième bu ñëwee boo tooylee boobu mooy nekk fard bu bi tooyul deuxième tooyul troisième bu ñëwee moom mooy nekk fard waaw waaye boo fexee ba première bi tooy moo xam sa kanam wala moo xam sa loxo bi tooy fa tabaraka allah ne ne ñaari ci dolleeku sa yiw day gën a bari waaw waaw mu ne la wa zaadidu ala asasi ula fil wajhi wala dee kon ñaareel moo am raxas ñetti yoon muy ñaareel moo am raxas ñetti yoon muy sa kanam bi nii ak sa loxo yi nii waaw waaw mu ne wa zaaridu ala rasil ula waaw dooleeku muy dooleeku ci raxas bi nga raxas première bi mooy nekk farda deuxième bi ñëw nekk nga ne troisième bi ñëw nekk nga ne waaw fil wajhi sa xarkaan wala leen as ñaari lox mu ma biddeel ak tàmbali bi mu xam dama la si jëmbeenu kon def nii tàmbali bi nga tàmbali si jëmbeenu bopp ni nga kon boo ñëwoon def nii rek kon am nga kon jàpp ni baax na sàmm boo ñëw def ndox mi nga def nii sa bopp nii rek jàpp ni baax na waaye nag ni ngeen di soxla tàmbali ni jëm ni nee na loolu nga leen la waaw waaw loolu dafa na sunna bi mooy dem bi ah ah kii bi far farata bi mooy dem bi dara si mooy sunna waaye nag boo defee nii ñëw def nii nee na nii xam nga boo defee nii def nii ñëwaat nii mën nga def nii def nii def nii mën nga defaat nii di nga am na loolu nga def waaw waaw maanaam bi dee ak tàmbale boo xam ne dama si jël bopp wa tartiibu sunna ak toftale bi ngay toftale sunna yi toftale bi ngay toftale mooy sunna yi def loxo soo fay def gàllankoor yi pare waaye boo ko juutaloon sax teewul am na jàpp ndax nga jël doon ndax kabaare la xam nga loxo bi ngay def nii def nii def nii boo defoon nii léegi pare def nii doo ko indi loxo teewul jàpp na hmm? waaw ndax nee nañ gën nga gën a jàpp ko ba yàqul moo mu ne waxtaan bi bu suñu ak toppale yi ngay toppale suñu yi loolu wax xiilatu ma ala ak néewal ndox mu ci cër kenn waxul nga jël paanu ndox wala siwal ndox di ko jàpp déedéet di leen mën a jàpp yem ci yow nga néewal ndox mi nee loolu ngëneel la waaw kon ndox mi mu nekk satara wala mu nekk paan wala mu nekk wala mu nekk mu nekk bidon dix litres wala bidon cinq litres lépp lu ci gën a te mën a mox loo xam ne moo ko jàppoo ba sa rek noonu ko charia bi waaw waaw mu ne wax xeetu may ak néew ndox mi ala abdi ci cër bi hmm. wa taqdimu yumna a yusra jiital bi ngay jiital sa ndeyjoor indi si càmmoñ nga leen comme la neexee bi nga jiital càmmoñ doo indi ndeyjoor te war am na jàpp may am na su la neexee mën ngaa jiital càmmoñ indi ndeyjoor te war am na jàpp waaye jiital bi ngay jiital ci ndeyjoor bi indi càmmoñ bi nga leen tey boo jiitaloon càmmoñ bi teg ci ndeyjoor bi doo am diis waaye boo jiital ndeyjoor bi teg ci càmmoñ bi di nga am mu nga jiital càmmoñ waaw waaw moom laa wax léegi mu ne Seydina Muhammad wax ni ci soccu lawlaa an ashaqa ala ummati la amartuhum bi siwaaki ma'a kulli wudu'in waaw su ma bañu woon sonal samay xeet kon naa ñu wax fu ñu balaa ñu jàppooti nañuy soccu waaw ah. balaa ñuy jàppante lañu socc soo bañ woon sora sora xel kon ñu dégg ci ni ko déggee rek soccu ngeen yi ci nekk dañoo bari waaw ngeen yi ci nekk dañoo bari waaw waaw di di yéen saa sara wax rek tabarakallahu mu doon jàpp moom su la benn benn la doon jàpp waaw moom benn benn la doon jàpp ndax benn bi moom mooy borom ngëneel kon tabaarakallaahu nañu tërëwal ci waxtu mat na ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala mu defal ñu jàmm am na jàmm àllaaxira defal ñu sutur am na sutur àllaaxira di jégalu ñëpp di baal xam du jiital ci nuyoo bi seen ñaan yi nekk bu kër Masar nuyu suñu yaay yooyu mu waa Awa nuyu suñu jàmbaar boobu mu suna di nuyu suñu góor di ko ñaan yàlla yàlla taxaw yàlla sàmm di nuyu tabaarakallaahu Assane Diarra nuyu Thierno Diarra fay mu sa jërë yëpp bàyyi ma kenn Pape Soumaré waa Cheikh Makhtar Cissé yàlla yàlla taxaw leen yàlla yàlla sàmm leen tabarakallah moom ñaan leen yàlla yàlla yàlla gën a dëgëral leen bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu Amadou Diarra tabarakallah ak soxna soxna soxna Télé Seydi di borom PDS tamit nekk ci ginnaaw Omar Sarr di ko jàppale moom it yàlla yàlla taxaw ko yàlla yàlla sàmm ko nuyu sama bàyyi ñu bàyyi moom kuy di ko ziyaara di ko ñaan yàlla yàlla loolu dëgëral ko papa moom loolu mu doy moom lay ñaan yàlla yàlla taxaw la yàlla yàlla sàmm la sàmm sa njaboot yëpp bàyyi ma kenn di jaay Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam nuyu DG di ko ñaan yàlla yàlla taxaw nuyu ko réaliser émission bi sëñ Samba Diouf di ko ziar moom di ko ñaan yàlla yàlla taxaw ak mboolem di ziar émission bi di nuyu Serigne Babacar Sall di nuyu Mame Ousmane Sy Dabakh nuyu Serigne Moustapha responsable muxtafin fi asani abaay wal ajdaadi mu Serigne Abbas Al Amin mu Serigne Babacar Sy mu Cheikh Seydil Hadji Malick Sy waaye nag moom Ousmane Sy tabarakallahu ñaan na ko yàlla yàlla mën a taxaw ko nuyu fa tabarakallahu Baye nuyu fa tabarakallahu si Hamza Mbacke du ma fàtte Cheikh Oumy du ma fàtte si Abdou Karim Makarim Akhlaq bàyyi ma kenn nuyu naa ñëpp ziyaar nuyu waa mujahidina waa muxlisina waa sopp da baax waa waa sopp si Babacar si ma kenn waa Xidmatul Xadim bu nekk si Pépinière nuyu Woulimata Ndiaye tabarakallahu ak mboolem njabootam ma jarabaat boobu naaw du ma la fàtte mukk yàlla yàlla taxaw la nuyu imam Fatou Koné ak mboolem ku nekk Moussaïra ak PDG bi maama Jéy Kama aussi sama ñaari bàyyi imam bu jógee imam Dramé yàlla yàlla saxal leen wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh